occasion bi santaat bu baax a baax a baax baawa bi nga xamante ni moom moo organisé tournoi bi ak li ko Baye Waly waxe sànq rek lu mu def ca ba grand pape di dund la kon bu ko defee ci ginnaawam mën na noo rafet jot ni dafay perpétuer rek li nga xamante ni moo nekkoon yéene bu mu am ci ki nga xamante ni mooy grand pape ñun nag en ce qui nous concerne encore une fois remercier waat bu baax a baax a baax a organisateur bi di remercier waat aussi ndaw men dafaari ndax comme ni ko François bi waxee rek xam naa dinaa ko jox kàddu bi moom mooy ki nga xamante ni moo yor kàddu parrain bi du benn yoon du ñaari yoon lañ fi ñëw ngir ci ay final yoo xamante ni dañ ko tuddee Massamba tuddee ko waa République des Valeurs kon ñu ciy sant bu baax a baax a baax distinction boobu noonu tey ñaan ñëpp ñoo xamante ne rek bu ñuy séntu ci ñun la ba di ñu wala di ñu duppee ay bés suñu borom def ko ci ñun ba saa su nekk mën na gis nit yu amee valeur comme yéen ci suñu ginnaaw xanaa di profité ci occasion bi rek di waat appel suñu morom bu jeune yëpp rek nanu demaat ci liste électorale yi ñu bindu te fàttali ko lu baax a baax ni li fi xew ak li fi am ci ñun la dépendre kon du ma guddal damay jox François bi nga xamante ni moo yor kàddu Massamba Diop mu mu yi jërëjëf euh, cher sportif Thiessois ñu ngi nuyu ñëpp siyaare ñëpp di rafetlu initiative bi nga xam ni moom lañ ñëw tey fekk si fi ñu frère Ndongo képp koo xamante ni yaa ngi fii di assister la cérémonie xam ni Baba Ndongo tey ki mu jagleel bis bi nekk grand pape nekk koo xam ni tey dinaan doon làmb la dañ naan mbër yoreelu na la àllarba waaye yaakaar naa ni képp koo xam ni tey footballeur nga nga nekk jeune dëkk ci zone bi nga dëkk Thiès surtout famille catégorie tey ñoo nekk nii di football senior junior ainsi de suite kon ñoo ñëpp aussi ñoo xam ni ci bénéfice su grand pape lan génnee moo tax faaw ñu soññe si xam ne ndaw ñi nga xamante ni ñu ngi ci en activité ak ci nekk ay professionnel jariñoo ci moom ñu leen di soññal ndaxte àdduna nit lii lañ ko amee ñu jóge àdduna jóge fi ñuy perpétuer ay œuvre am di ko tegaat rawatina football saa yu ñu xëyee développement di ci am kon genre formateur yu mel noonu waruñu leen fàtte dañ leen bàyyi xel ndaw footballkat yi laay wax loolu nañuy bàyyi xel les anciens formateurs nañuy bàyyi xel ñi leen yi former école de football dañuy bàyyi xel institut parce que football c'est une famille football dafa yaatu moo tax vraiment Baba Ndongo initiative yi mel nii nga jël tey nga ñëw laxasoo si ak euh, monsieur Massamba Diop nekk candidat wu zone nord ci élection maire yi ñu jëm vraiment lu mu lu la jotam mokk may ak service am fekk ko fi waaye xelam ak xolam ak dooleem lépp def na ko ci bis bi tey ba tax mu yabal cette forte délégation nga xam ni am na ci ay membres de la République des valeurs Xaadi ma ngi nii sama wet Mamadou Loum mu ngi nii suma wet Seynabou bu parti démocratique sénégalais bu ñuy sama wet Bara Faye Habib Dramé Déthié ah Laye Sy donc Tidiane Mbaye Lamine Dieye de ces activités ñu ñëpp ak xaritu lu ñëw ñëpp waa Madina Fall yëpp ñu ñëw def délégation ànd ak moom pour ñëw teew ci fête sportive sport nag dafa yaatu tey ñu ngi nii di dem ci ay phase nationale édition 2021 moo ko aye am na ay ASC wu Thiès yu war a teewal Thiès waaye Massamba Diop ci compréhension ak yàgg sonn ngir Thiès waay bërki démb dem nañ lu mel ni R100 pour leen te demandé wuñ ko dem na ngalam soutenir leen ñu ngi soutenir mbaaxaan bi war a bokk am cadet donc tey loolu lépp day jéem a xool lépp loo xam ne ndaw ñi ñu ngi ci moom ñu def ko loolu nag su ko defee warugar la ndaxte Massamba Diop mi ñuy wax. Il était un ancien gardien de but de Mbaxal, ancien gardien de but de euh, Somme dafay circuit Kadem à Théo nekk ancien secrétaire général bu zone de nekk ancien président bu Mbaxal nekk aussi ancien délégué bu Mbaxal kon kooku su wëlbatikoo ñu ci sport lay def ak bis bu ñu jagleel grand part mais delloo na mbatt ko mu war kon lii lañu soxla ci sport ensuite lii leen soxla aussi si ndaw bi nga xamante ni taxaw nga pour war a jàppale say moroomu ndaw ci seen loxo mu àgg kon ensemble li wax ji bari lépp Cees lii leen soxla autorité yi nañuy bàyyi xel li ñuy jariñ dëkk bi na leen di leen fàttaliku fii ñu toog nii meeru gox bii dafay waroon a toog par force parce que grand pape li mu formé ci zone bi mais autorité yi la dimbali wàññi leen chômage ndaxte jeune bu ci football ba am saleer tekki mais doon nga ay quelqu'un yaa ngi créé ay ay entreprise yaa ngi créé lu ne dimbali nit ñi dimbali sa gox kon it xam ni football dafa am doole ci Thiès football dafa am doole ci zone nord bi nii football dafa am doole aussi ci zone 2 donc loolu lépp dañ ko bàyyi xel xam ni football ñun Thiès ñun ñoo ko moom xam ni football zone nord moo ko moom zone yëpp ñoom ñoo ko moom kon maa Massamba Diop encore une fois comprendre na loolu bokkandoo ak jeunesse zone nord bi ci li muy am di leen tàllal loxo di leen wax ni seen mag la seen doom la seen jarbaat la mu leen di tàllal loxo incha allahu rabbi ci élection yi ñu jëm muy élection locale janvier 2022 bu bëgg jël mairie bi ñu mën changé changer lu bari ci gox bi wàll wi nga xam ni moom la football war a am yokk subvention yi jàppale club yi na fii gën a jàppalewaat équipe nawetaan yi sport ñoom ñëpp je lance appel kenn ku ci nekk xaaroo nooy def kenn ku ci ne sa programme d'investissement yaa ngi ko wéer ci li maas war a def boo xëyee jiitu waaxu fa ni yaa ngi door a def te mosoo ko xalaat kon encore une fois Massamba Diop c'est une satisfaction ndaxte ci ku ci nekk tey amoo programme d'activité xamoo nooy dimbalee nit xamoo foo koy def kenn ku ci ne ci ñoom bu maas xëyee dem ngalam ñoom bu ñu xëyee dem ngalam bu maas xëyee dem r ñoom bu ñu xëyee dem R100 bu demee ci ndox mi nga yor sa tracteur taxaw di daan da ngay fomp da def neneen donc je crois tey le programme de ces activités de ces autorités là mu ngi dépendre ci vision wu Massamba Diop comme ñoom ñëpp nag en globalité ñu ngi taxaw di copier li muy def ngir askan wi mais ñoom ñoo ñooñu aussi nit ki boo ko waree copier copier ko ci jikkoom ak programme ak taxawaayam nga topp ko ni ko yaama doy kon loolu aussi luy sooxeel zone bi la loo xam ne dañ ci war a bàyyi xel encore une fois ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan aussi nawetaan yi ñuy dugg ñu dugg ci ak bismillahi rahmaani rahim jël seeg alhamdulilahi rabbil alamin feebar bi yàlla dàqal ñu ko fi ñu retrouver suñu activité ñëpp nekkaat ci jàmm ñu ngi santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp wasalaam catégorie tey ñoo nekk nii di football senior senior ainsi de suite kon ñoo ñëpp aussi ñoo xam ni bénéfice su grand pape lan génnee moo tax baw ñu soññe si xam ne ndaw ñi nga xamante ni ñu ngi ci en activité ak ñu ci nekk ay professionnel jariñoo ci moom ñu leen di soññaat ndaxte àdduna nit lii lañ ko amee ñu jóge àdduna jóge fi ñuy perpétuer ay œuvre di ko tegaat rawatina football saa yu ñu xëyee développement di ci am kon genre formateur yi mel noonu waruñu leen fàtte. na ñu bàyyi xel ndaw footballkat yi laay wax loolu nañuy bàyyi xel les anciens formateurs nañuy bàyyi xel ñi leen di former école de football nañuy bàyyi xel institut parce que football c'est famille football dafa yaatu moo tax vraiment Baba Ndongo initiative yi mel ni nga jël tey nga ñëw laxasoo si ak euh, monsieur Massamba Diop nekk candidat zone nord ci élection maire yi ñu jëm vraiment lu mu lu la jotam mokka may ak service am fekk ko waaye xelam ak xolam ak dooleem lépp def na ko ci bis bi tey ba tax mu yabal cette forte délégation nga xam ni am na ci ay membres de la République des valeurs Xaadim ngi nii sama wet Mamadou Loum mu ngi nii suma wet Seynabou bu parti démocratique sénégalais mu ngi nii sama wet Bara Faye Habib Dramé Déthié ah Tidiane Mbaye Lamine Dieye le coordonnateur de ces activités ñu ñëpp ak xarit lu ñu ñëw ñëpp waa Madina yëpp ñu ñëw def délégation ànd ak pour ñëw teew si fête sportive bi sport nag dafa yaatu tey ñu ngi nii di dem ci ay phase nationale édition 2021 Thiès moo ko aye am na ay ASC wu Thiès yu war a teewal Thiès waaye Massamba Diop ci compréhension ak yàgg sonn ngir Thiès bari ci démb dem nañ lu mel ni R100 pour leen te demandé wuñ ko dem na ngalam soutenir leen mu ngi soutenir mbaaxaan bi war a bokk en cadet donc tey loolu lépp day jéem xool lépp loo xam ne ndaw ñi ñu ngi ci ak li ñu moom ñu def ko loolu nag su ko defee warugar la ndaxte Massamba Diop mi ñuy wax il était un ancien gardien de but de mbaaxaan ancien gardien de but de euh, Somme dafay circuit cadem à Théo nekk ancien secrétaire général bu zone 2 nekk ancien président bu mbaaxam nekk aussi ancien délégué bu mbaaxam kon kooku su wëlbatikoo ñu ci sport lay def ak bis bu ñu jagleel grand papa mais delloo na mbatt fa mu war a kon lii lañ soxla ci sport ensuite lii lañ soxla aussi si ndaw bi nga xamante taxaw nga pour war a jàppale say moroomu ndaw bu seen loxo mu àgg kon ensemble wax ji bari lépp Cees ñu doon soxla autorité yi nañuy bàyyi xel di ñuy jugee jariñ dëkk bi na leen yi bàyyi xel di leen fàttaliku fii ñu toog nii meeru goox bii dafay waroon a toog par force parce que grand pape li mu formé ci zone bi mais autorité yi na dimbali wàññi leen chômage ndaxte jeune bu ci football ba am saleer tekki mais doon nga ay quelqu'un yaa ngi créé ay ay entreprise yaa ngi créé lu ne dimbali nit ñi ministre boobu kon it xam ni football dafa am doole ci Thiès football dafa am doole ci zone nord bi nii football dafa am doole aussi ci zone 2 donc loolu lépp dañ ko bàyyi xel xam ni football ñun Thiès ñun ñoo ko moom xam ni football zone nord moo ko moom zone yëpp ñoom ñoo ko moom kon Massamba Diop encore une fois comprendre na loolu bokkandoo ak jeunesse zone nord bi ci li muy am di leen tàllal loxo di leen wax ni seen mag la seen doom la seen jarbaat la mu leen di tàllal loxo insha allahu rabbi ci élection yi ñu jëm muy élection locale janvier 2022 bu bëgg jël mairie bi ñu mën a changer lu bari ci gox bi wàll wi nga xam ni moom la football war a am yokk subvention yi jàppale club yi na fi gën a jàppalewaat équipe nawetaan yi